ñi ko def xam nañ leen ñoo image yaa ngi fi ñoom ñoo dem ba yegg kër sañ mun Muntaxa def fa lañ fay def loolu nag naqari ñu lool lool lool lool ñun ànduñu ak ñoom naqari nañu trop te naqari na sëriñ bi ñu ko def seen i tur a ngi fi ñi ngi seen image a ngi fi ñun loolu duñ ko mas a def gonay dëkk bi lañ dëkk ci dëkk bi loolu def ñoo naqari ba mu tax ñu jóge fa ñu nekkoon ñëw tey jii ci APR fas yéene ànd ak Muntaxa mi ànd ak Abdoulaye Diakhaté mi ñu jàppale leen ñu liggéeyal président mu gagné euh, mandat bi euh, ci premier tour bi incha allahu rabbi incha allah premier tour premier tour premier tour premier tour premier tour kuy war ay nit ñu baax di war ay gor di war nit ñu bëgg lu baax di war bëgg ñu bëgg lu rafet àndal ak ñii waaw lu ya am lu ne dafa am foo ko yàlla di jaarale maa ngi ñoom dama faa dem koroog ci guddi ñuy waxtaan jàmm yëkkatiñu aw yiw yëkkatuñu seytaane bëgg dugg suñ diggante ñoom ñu taal seen oto ñëw sama kër ne ma duñ ko nangu ñun nag ma ànd si ak Abdou Lahad Diakhaté doomi Serigne Bada Diakhaté ànd si ak Ibrahima Diop muy responsable di coordinateur li amoon démb ci kër sëriñ bi li amoon démb ci kër sëriñ bi ñu ngi koy naqarlu du waa kër sëriñ bi du ko nay 28 am mbokk mbokk mu dëkk ci dëkk bi barke dembu sëriñ bi dem gën ko si màggalam sagal ko ci biir mbokam mo xey walbatiku tek sëñ bi gatcha ñun nak ñi ngi xamle sëñ muntaha lu ko way lebal lu ne ding ko fayeku sones bi nak ñew nañ tàllal loxo president Macky Sall ñi fi taw ñoy 28 duñu ay bandi duñu ay agresseur ñom dañuy dan sen doole di wut luñ am ñu bëgg leena a jiñ ay bandi bëgg leena jiñ ay toxkati yamba nak ñom nak nag wuñ ko tey wuñ ko ëlëk président nak man ma nglay jox ben signe di la ko wax ñi ma andal tay ban ñew defal ma li lima bëgg moy so falo ñu jappale leen ñu yëkëti leen lepp luñu jox ci sonos bi lañ leen ko jox nak li nga xamne mom lay wax di len ko xamal dama bëgg ñu gëm suñ bopp jàpp ne war nañu doon président ëllëg jàpp ne war nañu doon ay responsable jàpp ne war nañu yor ay usine zone industrielle bi ñu président jox ñu war ko am ñun waa Touba ñun jeunesse bi nañ def suñ bopp ne dañoo war a doon ay kilifa ëllëg buñ nangu kenn ñëw di ñu jox ay ñaari junni ak i junni ñuy xeerante di tojantey bopp ñun ay mbokk lañ ñoo bokk luñ bëgg ñoo bokk kuñ gëm sëñ Tuubaa lañ gëm tey moom lañ gën ëllëg moom lañ yaakaar léegi nag damay jox Abdoulaye Jaxate mu sànni si ay kàddu su ko defee ñu xam ne ñun bis naka tey ànd nañ na tàllal nañ loxo lenn luy xaj suñ ginnaaw lu ñaaw du am comme li ko Muntaxa waxee rek bu ñu nangu kenn jaxase ñu benn nañ politique bi day jeex di lépp day jeex politique gu léegi waruñu koo yàq ñu ci wax Touba ak lu ñaaw foo laal ci réseaux sociaux yi Touba rek nañuy wax te lu ko waral te yàlla dogal na ñun ñëpp ñu daje nekk benn barab kon nañ bokk gëm-gëm gi ànd mag sàll bilaam rek mën na ko jàllale bu ko Touba contre na ñëpp mbooloo nekk benn àndandoo liggéey ñoom seen mbir jeex na ñun ñoo fi des ëllëg kenn amagu fi 40 ans kon na lépp rafet ñu ànd joxandoo loxo ñëpp nekk benn liggéeyandoo man lu ne dama koy dégg lu ne dama koy jot ci réseau sociaux yi ñu may wax di ma xas waaye damay jàpp ni lépp mbirum àddina la rek kon war nañ mën a ànd war a def Macky Sall li mu liggéey ci yoonu suñ Tuubaa bi amul benn président nañ wax dañ jël yëf yi rek teg ko na le mais nañ xool ni mu liggéey ñu ko contre ngir ndin mi ci nekk wala dara nañ ànd joxantandoo loxo àndandoo lépp man fii ñu bëri daanaka ñu bëri xàmme naa donc ñun ñëpp benn nañ nañ ànd joxante loxo liggéeyandoo waaw Macky Sall jël ndam bi. premier tour